بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون kon dafa mel ni waaw euh, Oustaz sëñ Xarim sëñ Mbàkke dañoo waaw léegi waaw. Euh, oustaz Alioune Sall bismillah. bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki daara ji asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu bokki daara ji asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu jàmbaar yi asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun benn téere rek ko ko wax mooy téere bi gaa yi doon bind nga xam ne ñoom tey bu nu wéetoon ci néeg ñu lakk alxuraan yépp juróom-ñaar ñi bindaat ko wa innahu la zikrun lak sunu borom nee na téere bi dong dong kepp kott moo fi teraanga wa innahu la zikrun lakk yow rek la sa teraanga mu ne déedéet alxuraan du teral nit yem ci moom wali xawmika daf lay teral teral say bokk mu des nag wa sawfa tusaluun bu ëllëgee daañ la laaj yow loo teral la alxuraan sëriñ Seck Baye Mahmadan jërëjëf liggéey bii dey ku dul waxtaan ak technicien tuyaaba yi doo ko man te yàlla baaxewu ko ñéppit ginnaaw nag taxawal nga nu ci yàlla na ko yàlla def muy fardu kifaay yi nga wax nga nga taxaw ci mu wàcc nu mbokk yi li nu boole tey ràbb nu ci génn buum yàlla bu ñu génn buum googu alxuraan nu woo tey wooxe ñu ci wooxin mu yéeme nag mooy nan ko bind loolu ñu dajale tey seen rafaa yi wax na sànq diggante mokkal ak wattu moonu fi ba nag moom alxuraan noo ko fi ba moonu fi ba noo ko fi ba te itam lu mel nii kenn mënu ko mbooloo koy def man di sëriñ na naka tey xam naa sax yaa nga ca Sud FM waaye bés naka tey luy demate cib tabax luy demate cib tabax ak nu mën a mel jëru sax ngay bu dee pour man bul publicité te nag domp ci sot la bokk banu Israël nee nañ li tax ñoom lu ñu yëkkate man koo def mooy ñëpp a ci dugal seen loxo man nag bés naka tey incha allah samay fenêtre samay porte barido yi li koy yeew lay ubbi bunt ba ak la koy tëj lépp c 3 laa koy jënde li tax nuy aayab jullit mu jàpp ci lu war te jàpp mooy boo jàppee ci loo warta jàpp yaa nga dooleel loo warta dooleel wa taawanu ala al wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan daañu jox loxo insha bu nu fi jógee mbokk yi nu fexe ba Serigne Seck mii ak Ablaye Dia Sénico mii ñu ne leen nii tey jii kat bisub alxuraan la boo xam ne nun ñëpp buñ génn ci biti bu ñu neexee na sogg mu nu neexee bu ñu génn ci biti ñun ñëpp ñu ne sogg lu ko waral waaleykum salaam wa rahmatullah lu ko waral mooy alxuraan mu boole ñun ñëpp wa'tasimu bi hablillahi wala tafarraqu ma dellu siwaat fi may jeexale wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun ma bëgg nun ñëpp ànd ci li may bëgg wax ñun ñëpp nag ñun damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak man ci li may wax ñun ay jullit lañ yàlla mooy sunu boroom muhammad mooy sunu yonent lislaam mooy sunu diine alxuraan mii mooy sunu téere jullit yëpp ñooy sunuy bokk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ما أنت بنعمة ربك بمجنون